Moussa Cissokho maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna si. voilà Moussa Cissokho nga nekk membre bu syndicat des travailleurs des collectivités euh, territoriales tey jii yéen ngeen fas yéene amal ab grève bu 96 heures à partir de mardi 15 euh, août lan moo waral ngeen bëgg a amal grève boobule exactement. waaw soxna si leen di sant di leen gërëm di nuyu seen organe bi ñëpp di wax rek ne waaw man de man. Euh, man maay Moussa ko man euh, fan yii passé lañ ma teg si boppu syndicat bi nga xam ne dem si yàlla Sidya Ndiaye moo ko doon dirigé euh, ñi koy ñaanal euh, yàlla yàlla yërëm ko xaree ko àjjana fu mu tëdd waaw léegi ñun inter man damay wax su suma tur ak turu intersyndical des travailleurs de collectivité territorial bi nga xam ne moo ŋànk liggéeykat gox goxaan yëpp tey euh, dañu décider ñun collectivité territoriale liggéeykat yi euh, dem si ay grève yoo xam ne vraiment dañ koy dañ ko fas yéene jàpp si sur l'étendue du pays bañ a teggi nag suñu tànk parce que fu mu nekk nii yaakaar naa ne luy luy jot jot na comme nu ko wolof fi di waxee dañu tooñ ba ci kanamu yàlla bëggoon ñu néewal doole bëggoon ñu toroxal si kanamu suñu ay nawle te loolu ñun liggéeykat gox goxaan yi dootuñu ko nangu te tey boo waree euh, réew yëpp xam nañ ne gox goxaan yi ñoom ñooy porter développement réew gox goxaan boo dem si àdduna dañu jàpp seen liggéeykat yi teg leen si des conditions yu baax yi nga xam ne lépp lu ñu soxla dañ koy am nekk seen jàmm nekk seen quiétude mais ñun fii Sénégal booy liggéeyee si gox goxaan yi non seulement teyor bi baaxul mais su fekk ne am na ay avantages yu ñu la war a fay tamit ñu koy ñu la koy bugg xañ mais loolu tas demee fi dafa métti si xol comme que nag ñun ay sénégalais lañu te si réew mi lañu bokk te ñun tàllaw ñu suñu loxo ñaan kenn dañu ne ne suñu yelef suñu àq ak yelef ñu respecté ko te bëgguñu ko respecté ñun nag dinañu taxaw tem pour ñu respecté suñu ay droit parce que lu xew dafa ñaaw article L vingt neuf code collectivité territoriale dafa ne lépp bépp avantage boo fay liggéeykatu état bi da ko war a jox eh, eh, eh, liggéeykatu gox goxaani parce que état bi euh, liggéeykatu état yi ak liggéeykatu gox goxaan yi benn la rek la démembrement rek xaw ma nu ñu koy waxee ci olof waa tey ñoom ñu génnee seen ay documents def lépp fay agent état bi fay agent non fonctionnaire état yi sax mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox goxaan yi ñi am droit war a fayeku loolu ñu bëgguñu ko xañ amoon na sax ay mairie yu commencé fay. mais ni xëy barki Dembo Ndiaye ñu ne woy ñu amuñu si droit commencé leen ko génne ñi teg ko si lan teguñu ko si dëgg teguñu ko si yoon dañ ko teg rek pour nasaxal liggéeykatu gox goxaat te ñun si réew mi la bokk te ñu développement parce que coow bi coow bi yëpp réew mi bu demee ba am ba ba développé wu euh, di di développé wu liggéeykat euh, gox goxaan yi teg nañ seen loxo moo taxit mbéjum kanam nag borom moo koy fajal boppam. te lu ma lay wax nii lu leer nañ la soxna si. Hmm. liggéeykat yi yu nekk si gox-goxaan yëpp dañu décider ne. lii moom bi yoon du ñu bàyyi du ñu tegg seen tànk tànk feyuñu leen li leen waral lu ñu leen amel waaw parce que hmm. seen droit la ñaanuñu nekkuñu ci ay ay ay réunion tu ji waxtaan pour seet nan lañ leen koy fay wala kii mais dañ leen ko war a fay dañ leen ko war a fay dañ leen ko fay waaw mais nan la ñu a nekkee ci réew moo xam ne mu ngi am ay direction des du service public local bi nga xam ne tey bu ko neexee bu yéegee bu duggee ci ordinateur am bu tàppee dina xam ñan ñoo ci am droit ak ñan ñoo ci amul droit ñi ñu bugg a di ñu bugg a wërloo di ñu jaarloo fu nekk naan koy ñii ñooy am ñii mais loolu yëpp xam nga loolu lan lañ ko tuddee dañ ñu bugg a jàpp rek teg ñu ay na excusez mois de parler comme ça teg ñu ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara wala muusuñu bugg ñu nax. pour ñu dem ba ay élection ñu fàtte suñu affaire ñun nag doxuñu ñoom dañu am seen agenda di ko déroulé ñun tamit nañu am suñu agenda di ko déroulé du ñu bàyyi tant que fayuñu jàmm dootul am fii si gox goxaat yi parce que du trop nag c'est trop dañu commencé jàpp nit yi di leen bugg a def comme euh, di de euh, daal néewul euh, dañu dañu xaw ma duñ koy waxee si olof dañu respecté wul liggéeykatu gox goxaat yi mais loolu mooy lan. mais loo xam ne seen droit la yàqeetu mu leen da nga leen koy fay wala boo ko mënul nag nga toog ak ñoom nga waxtaan mais ñun tey dañu tumuranke parce que amuñu sax ministre ba ñuy waxal ñun suñu ministre de tutelle ñu bind ko lettre depuis le vingt cinq juin ah mais ba léegi ta xooluñu yënga toppatawul sax suñu luñ ko luñ ko bind lan lañu gis fan yi passé mu dem créer benn benn mu tuddee ko édition première édition du dialogue teritorial au Sénégal mu koy def woo invité maire yi invité conseil président conseil départemental yi bàyyi ñi nga xam ne tey ñoom ñooy acteurs yi au premier rang muy collectivité te euh, muy travailleurs yi te ñun ñii seen représentant yi teewuñu si loolu yan nga laakaar ne réew noonu lay doxe yow ngay def ay ay mbir yow ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi nga yenn ak ñu bokk si acteurs yi ngay éliminer ñii di jël ñale loolu nag moo dakk dañ ko décider te liggéeykat yi tamit dañu taxaw temb ne ñoom duñu bàyyi duñu dellu gannaaw loolu na leer nañ léegi nag mbir mi demee na nii ñun lu ñu bëgg mooy nañu jublu suñu mbir ñu fay ñu ñun xam nañ ne fu mu nekk nii taluñ ñu parce que ñoom ñu ngi nokk ak di toppatoo seen agenda politique ñun tamit suñu agenda sociale moo fi nekk waaw président de la république nag ñun dañ koy interpeller ñun en tant que liggéeykat te bokk si réew mi dañ koy ne moom moo ne woon année deux mille vingt bi année sociale la mi ngi commencé parti boo euh, euh, euh, ci Sénégal tey ñuy fay ñu bëri secteur primaire secteur tertiaire ñëpp ñu ngi jot seen xaalis les les agents de l' état les agents non fonctionnaires de l' état jot nañ seen augmentation ba mu des liggéeykatu kii collectivité territoriale yi mais loolu fan lañ ko teg moo tax ñuy laaj président de la république ni koy ñaan mu instruire autorités yi nga xam ne ñoo yore en charge suñu dossier bi ñu jublu si suñu mbir. fexe nu ñu fayee parce que tamit jàmm moom boo ko buggee da ngay def jàmm mënuñu toog nag ñu ñuy bañ a parce que tamit euh, euh, bu ñu koy bu ko guvernement bi di def bu ñuy commandité étude boobu dafa xoola ne yàlla a de la vie dund bi cher na mais ñun xanaa bokkuñu si dund bi ñu bokkuñu Sénégal ñun ñun dund bi chéré si ñeneen ñi noonu la chéré pourquoi ñuy augmenter ñun ñu duñu bàyyi ñun mais vraiment loolu moo war a jeex Sénégal parce que trop c'est trop ñun nag liggéeykatu gox goxaan yi dañu décider parce que dañu am suñu fulla ak suñu fayda ni ngi doon taxaw nag parce que jamono yooyu yëpp boo gisee yënguwuñu waxuñu dara parce que dañu tombé woon dafa amoon ay événements malheureux yu ñu gaa gaañu Syria bi moo taxoon ñu ne nañu toog ñun ñëpp ni banque suñu euh, loxo. parce que pour respecter son son sa mémoire. maanaam sargal ko bàyyi ko ba yàlla yàlla yërëm ko xare ko àjjana. mais ñu ñun ñu jooy Syria sax ñu commencé di ñu indil yeneen naxar fii di fay ñii du ñu bàyyi mais loolu xanaa nag ñoom waroon nañu sax xool si ki nga xam ne muy Sidé Ndiaye nga xam ne euh, coono bu nekk daj na ko pour kat collectivité territoriale yi pour sargal ko fu mu tëdd sax mu mun a mu mun a noppaleku si jàmm ah comme ni ko mu mun a reposer en paix comme ni ñu ko waxee en français ni seet si euh, si góor boobu nga xam ne tey jóge na fi ni jàppale ñu pour fay ñu suñu suñu augmentation yi mm. mais nag loolu yëpp nag ñun dañu jël suñu yaakaar teg ko ci jox ko su président de la république ne ko ñun nag ci Sénégal lañu bokk bëgguñu fi histoire bëgguñu fi xeex bëgguñu fi dara jàmm lañu bëgg jàmm nag boo koy wut da ngay fexe ñii nga xam ne ñoom dañu am ak seen àq ak nga fay leen seen àq ak boo buggee jàmm mais nu ñu wax ne jàmm day am ba pare di jàpp nit yi di leen tooñ wala di leen na saxal ñun duñ ko nangu moo tax ñuy lancé appel président de la république mu jàpp ci mbir mi mu jàpp ci mbir mi ba ñu delloo ñu suñu àq ak yëleef. léegi ngeen fas yéene amal benn marche nationale. Euh, marche nationale boobu naka lay demee ak kañ ngeen koy amal exactement. waaw léegi xam nga suñu plan d'action bu ñu décliné keroog si suñu conférence de presse bi dañu ne au-delà des grèves ya sax yu ñuy def nii grève moom day am ala kulli al dañuy grève moom du ñu liggéey euh, semaine bi moom lundi rek lañ ciy liggéey mais mardi mercredi jeudi vendredi kenn dootul liggéey Sénégal fii ci gox goxaat yi mais beneen bi ne chaque dans chaque région dañuy def ay ay ay assemblée générale sectorielle assemblée générale yoo xam ne dañ koy def à la même heure euh, et à la même date dans chaque région ba pare fas yéene nag def marche nationale bon marche nationale bu ñu def bëggoon def néew ñu ñëpp travers yi ñëw Dakar parce que day compliqué ñu ne képp nag dans toutes les capitales régionales maanaam euh, fépp Sédhiou Kolda Ziguinchor Tamba euh, Saint-Louis partout au Sénégal liggéeykat yi nañu dajaloo def ay marche marche bu ñuy def Dakar à la même heure ñu ngi marche Saint-Louis ñu ngi marché Sédhiou ñu ngi marché Ziguinchor ñu ngi marché partout au Sénégal mais boobu dat euh, fan yi fan yi néew dinañu joxe date précise pour wax leen ne euh, marché bi tel jour lay ko euh, lañ koy amal incha allah. Euh, d' accord est ce que si soxo avant ngeen di ficeler seen plan d' action contacter ngeen autorités yi ngeen war a contacter yëpp si seen situation bi. xam nga ñun liggéeykatu ministère liggéeykatu gox goxaan la ñun mais dañu am ministère de tutelle suñu ministère de tutelle mooy mooy kii Mamadou Tall man mii ñun intersyndical bind nañu demande de rencontre pour toog ak moom waxtaan ak moom seet na la ñuy régler man sama bopp man nii man ma dox suma tànk dem ba ministère ba déposé ni déchargé ma lettre bi waaye loolu ku ko def xam nga ne bu nga jàmm waaw mais ñun bu ñu bindee lettre bi ba léegi mais ministre bi daf ñu daf ñu xoolul sax waxul ak ñun waxul ak ñun binduñu waxul ak ñun depuis le vingt cinq juin tey ñu ngi dugg mois léegi léegi léegi sax jeex waaw beneen bi soxna si. Mhm. yow récemment mu organisé fii benn forum bu ñu tuddee première édition du dialogue territorial au Sénégal mu invité mu mais xam nga bu mu koy def ñan la invité. Mhm. dafa invité maire yi invité les présidents de conseil départemental mais ñun nga xam ne ñun ñoo fi toogal liggéeykat yi mais ñun waroon bokk ci dialogue des territoires boobu muy wax te dialogue territorial bi. mais dañu teg à la périphérie xam nga lan lay prouver dafay wane ne ñii dañu amul respect pour liggéeykatu gox nga xam ne dañu leen te bu ñu xamoon luy gox goxaan dinañ ci bàyyi xel parce que tey réew yu réew yu dem kanam yëpp dañu commencer par par les collectivités territoriales qui sont au début et à la fin du développement mais ñoom xamuñu loolu ñoom dañu am seen agenda seen agenda mooy lan nañu toppatoo seen yëfi politique nañu toppatoo élection yaa ngi ñëw yooyu rek moo leen intéressé mais ñun tamit ñun liggéeykat yi nag ñun tamit dañu am suñu agenda ñàkkuñu fayda ñàkkuñu fulla ñoom ëppalewuñu dara ci réew mi ci réew mi lañu bokk ñu bokk ci réew mi ñoom seen droit ñu ngi koy réclamer ñu ngi leen koy jox mais mun loo yow nga fu ngay toog nekk ministre lépp sa indemnité sa lépp ñu la koy fay amuloo benn problème nga gis ay liggéeykat yoo xam ne ay néew ju doole la ñu amuñu dara déjà salaire yu ñu leen di fay sax c'est des salaires miséreux amuñu dara yow nga au lieu nga jàppale leen sax pour seet yow yaay seen ministère de tutelle pour seet nan la ñuy génnee ci situation bi yow nga toog di def yeneen fàtte leen mais loolu moo jeex loolu moo jeex Sénégal mooy jeex Sénégal ñoom nag am nañ seen agenda nañu dérouler seen agenda ils sont libres de dérouler leur agenda, mais les travailleurs aussi sont libres de, dé, de, de dérouler leur agenda. Et on va dérouler notre agenda. Il faut qu'ils nous respectent. pour ñu xam ne tamit si réew mi lañu bokk te dañu war a joxante cër joxuñ ñu cër mais nañ dem. léegi am na maire yoo xam ni actuellement dañ leen a teg loxo euh, yéen si seen liggéey rek est-ce que indiwul ay gàllankoor. waaw xam nga xam nga loolu aussi mun na mun na sax euh, xam nga euh, boo gisee xam nga ñun texte syndicat yi dañu ne euh, toute confession politique religieuse ethnique maanaam suñu kuréelu syndicat yi dañu koy tere wax man maire yooyu xaw ma lu tax ñu arrêté leen xaw ma lu tax leen arrêté loolu bon man mënuma ci avancer mais ce qui est évident ce qui est évident mooy tey ñun ñi la xam ne ñoo nekk ci gox goxaan yi di liggéey ñun lu ñu wax mooy lu gën a yomb dañu ne ñun suñu àq ak suñu yelleef nañ si jublu fay ñu suñu droit comme niñ ko fay ñeneen liggéeykat yi fii si réew mi tey boo demee direction bu ñu wax la direction du service public local c'est-à-dire la DSPL ñoom ñoo yare dossier travailleurs collectivité territoriale yépp ñoom am nañu euh, am nañu gis-gis si lu xew si collectivité territoriale mais xam nañu ñan ñoo am ay contrat à durée indéterminée xam ne ñoom ñoo am ay contrat à durée déterminée am ñoo xam ne bokkuñu si périmètre bi mais nañu génnee loolu teg ko ñu xam ne ñii ñoo ci war a am droit ñu ci ñun waxuñu ne ñëpp a am droit mais ñu ci am droit yaa xeeti nañu fay ñooñu mais pourquoi defuñu loolu ñi ñuy dugal ñun mënuñu dugal dans l'arène politique parce que ñun defuñu politique na n'avons rien à voir avec la politique duñ ci dugg duñ ci kii ñun nous sommes là pour la défense des intérêts matériels et moraux waaw mun nga nag def syndicat sax su la neexee dem def politique mais politique moom doo ko wax ci suñu ci suñu kii suñu suñu kuréel parce que dañ ko fay tere lu ñu intéressé mooy la défense des intérêts matériels et moraux liggéeykat yi nee nañu dañu sonn na ngeen seen droit na ngeen seen droit ñu loolu rek moo ñu tax a jóg leneen taxu ñu jóg. d'accord Moussa Cissokho maa ngi lay remercier bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay soxna si jërëjëf. jërëjëf Moussa Cissokho may fàttali ni euh, yow yaay secrétaire général euh, national bu syndicat unique euh, des travailleurs municipaux donc bokk aussi ci nekk membre ci syndicat des travailleurs des collectivités. voilà waaw nekk membre de membre je suis le secrétaire administratif aussi. voilà de de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. voilà merci beaucoup Moussa Cissokho. maa ngi leen di remercier madame jërë leen jëf.